Thierno Sy doon euh, coordonnateur PASTEF bu Mermoz Sacré-Cœur waaw comme euh, dama ñëwoon euh, ziar si président Ousmane ko rek fekk fi takkadeer yu takku takku takku takku waa GIGN ñëwoon di ko jël si voilà donc j'ai été témoin donc waa waaw mbir fii la ma fekk fii la ma fekk bon une cinquantaine ah parce que y avait à peu près une douzaine de pick-up et puis seen ñaari chars yi avec des véhicules légers alors bu ñu ñëwee du ñu commencé sonner bi ñu sonné sonné sonné sonné gardien bi li ñu fekk apparemment on avait donné des instructions pour ñu bañ a ñu sonné ba sonné kenn ubbiwul alors ñu escalader mur bi par la par du garage escalader mur bi ñu ngi yoroon bélier ñu tàjji bunt bi voilà bu ñu tàjjee bunt bi nag la Ousmane Sonko bon génn pour bañ mu am dégâts mu génn wax ñoom ànd ak ñoom ñu dugal ko seen oto yi yóbbu ko. benn ñu ko dugal yóbbu ko ah après char de combat bu mu jógee julli ji di ñëw voilà dafa demoon julli di ñëw fekk benn gaan di ko topp di ko filmer léegi nag mu nangu téléphone kooku dugg ak moom ci a ci ci biir kër gi loolu xam naa prétexte la rek mais du loolu je ne pense loolu moo tax arrestation bi ñu ñoo arrêté ko waaw pour man a lii ça a été prémédité préparé nañ ko parce que soo gisee takk der ñu fi ni ñu fi bëree woon ah ba pare corps de lutte moo fi ñëwoon je précise que waa la donc je ne que une pour man c'est la suite logique euh, de l'affaire euh, voilà de Adji Sarr